incha allahu rabbi dinañ leen faj on va vous soigner di ngeen wér peng alxamis feebar bu leen mën a jot ci àdduna bi dingeen ngeen wér seen affaire góor jigéen yëpp dinañ ko génnee list yi dinañ ko dévoiler duñ ci nëbbati dara duñu bàyyi dara amul dara loo xam ne dinañ ko desal Guy mari Sagna daal moo leen di xan jàmm bu soobe yàlla gii mari Sagna bu génnul alxamis lu dal doomu sénégalais yaa ko teg sa bopp ku fa am cardiaque xam leen ne góor jigéen a ma ko jox cardiaque tunkara reyu ko reyuma ci kenn cardiaque yi dina bari nag fi mu ne nii hôpital yi fan yi dinañu bari ay malade mais bu soobee yàlla duñu leen may mayati dara c'est fini parce que doomu jàmbur boobu defu leen dara il n'a rien fait il n'a rien dit de mauvais c'est ça la réalité voilà doomu jàmbur boobu amul kenn ku mu def dara da ngeen di xool ragalu leen yàlla doomu sénégalais buy waxati tey day jooy tey amul Domou sénégalais hier j'ai parlé à ce petit frère il avait les larmes aux yeux ay xale yu ndaw sax dañuy jooyal Sénégal tay. ben, de beneen déception ma am te je vais vous mettre en garde xaw ma ay footballeur ngeen xaw ma ay tëlkatu bal ngeen dama di def en garde ñun bëgg nañ leen en tant que citoyen sénégalais on vous aime beaucoup waaye ku fi génn di jéem a défendre Macky Sall danañu téegal sa ndey dañ leen di wax lu leer ngeen dégg ko xaw ma footballeur ngeen xaw ma ay joueur ngeen xaw ma yan façon imbécile ngeen xaw ma ko voilà ku fi génnati ngay jéem a défendre Macky Sall dinañu solal sa ndey kilote bu bees parce que ay doomaraam ngeen yan boo leen gëmoon Sénégal boo leen bëggee Sénégal gis ngeen senegal métit bi fa nekk kenn dina génn di jëm a défendre Macky Sall génn leen rek démb dégg naa Sadio maane moom waxuma ak moom en direct parce que wóoruma li ñu wax mais xam naa ne dégg naa ne doomeeraam dégg naa dégg laa def dégg ne dem na démb nee na moom day dem fële université di fa wax ay waxu dof dégg naa ko wóoruma parce que nous la wóorul mais vous faites que ñu wax des la frère régler sa régler. man wa Casamance la ni yow Il faut régler, il Il régler, régler régler, il si dindin dindin kendo kam régler. Il mal Il bata no yalo hala hani la hani école mal yettenkun wole beteyata dindigo kattenkun ne a si laato yàlla moo la taal yal na la yàlla continuer taal yalla may la ndam ci Sénégal waaye nga génn ci ay affaire Macky Sall nga régler sa bopp loolu moo gën boo réglewul sa bopp dinañ la solal culotte bu bees loolu mooy dëgg bi na nga sa bopp on t'aime beaucoup on est très fier de toi mais bul fi génnati ngay wax waxu waxu Macky Sall c'est ça la réalité yow xam nga sa bopp xam nga sa dëkk ndax sa Macky Sall bu yoon yow doo def université sa dëkk doo tabax sa dëkk doo fa def ay hôpitaux donc bul ñu fontoo boo fi génnatee di fi wax ay waxu Macky Sall dinañ la solal kilot bu bees El Hadj Diouf doomeeraam jooju gis nga fi ñu ko teg ñoom fi ñu ko teg ñun donc tu te méfies na nga def beaucoup attention tu es encore jeune, tu es talentueux, tu as ta future devant toi. Bëgguñu fay say lamp. On ne veut pas te traumatiser. Bon fi génnatee ngay wax ay waxu dof ci Macky Sall dinañ la traumatiser. Lolu ñun ñoo la ko promettre. boo ñu yabé, bo yabé sénégalais yi na nga xam foko ko Bo fi gennaté, ngay dem ay université wala ben école que ce soit nga ne yow da ngay dem fofu pour difa wax waxu Macky Sall dinañ la régler sa compte di ñu dégg. voilà nous on n'aime pas Macky Sall bëgguñu benn doomeeram bu ñu ko imposer ñun bëgguñu Macky Sall bëgguñu lu ko jege ku fi ñëw di kuñu di ñu ko jéem a imposer dinañ la teg sa place ak joueur ak chef religieux ak koo mën a doon ku fi génn di soutenir Macky Sall danañu daj